bés bu nekk nii lay deme ay attangi nii ay ndongo yu ànd ak seen saak di daanu ci biir ndox mi ni mu tooyee nii danga koy weer ba mu wow wala nga jëlaat beneen kaye ngay obligé di recopier waat traverse bi xanaa metti ndax xam nga ne fi fii yëpp ndox la fii ba fee tamit balaa ngay ñëw booy booy dem da ngay tooy booy ñëw da ngay tooy eh, gis na ni tamit sama kay yëpp a tooy Euh, traversé bi moom métti na ndax tamit boo ñëwaatee ba si pont bi affaire bi day métti ndax pont bi gis nga fii yëpp baaxul da dox di daanu wala par yenn saa nga gaañu keroog yeeg sama sama collègue fii daanu na fi ba gaañu. école bi nga xamante ne moo gën a jege Wandié mu nga nekk ca Marlodj juróom benn kilomètre la ñuy dox ci bés bu nekk dem ak dikk. lu tollu ci téeméeri ndongo ñu ngi koy def ci bés bu nekk sixième ba terminal te xam nañu ne saay bu ñu traversé saak yu ñu def ci paan yenu ko mën na daanu ak kaye parce que yenn saay da ngay jóge dëkk ba war a jaarli si ñëw ba fii daanu da ngay yenu paani jën bu fekkee euh, marée haute nii da nga sa paani jën ñëw ba fii di wàcc daanu wala nga ñëw ba nële daanu comme pont bi baaxul boo gillisee mun nga daanu say jën réer xaaj bi ngay for xaaj bi day dem ñetti téeméeri nit ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci wàññe am ay jafe-jafe ngir génne fa ci pont bii lañuy jaar pont boo xam ne ak bant lañ ko defaree atum 2019 la ko askan wi taxawal foofu am na ñoo xamante ne sax duñ ko ñeme dañuy ñëw taxaw woote waat ñu jël si leen ak gaal loolu yëpp day xew nga gis ay tubaab di fi daanu nga gis nit ñu ñuul di fi daanu man muy wax ni suma jabar daanu ñal si jabaru kii daanu faa bi daanu ñal si ay ay ñu bari daanu nañ fi. dañoo toog ba benn bés ñu ne jot na mu am pont léegi ñu sensibiliser xale yu góor yi ñu dem góori ay bant seize jours lañ ko lañ ko taxawal nit mun fee jàll dem waaw ndaxte loolu boo gisee ñu def ko jafe-jafe dafa bëri ndaxte bu njëkk buñ daan root dañuy rooti marloj trois kilomètres di fii boo ñëwee bi bi ci biir ndox mi ndox mi tuuru. askanu wàññe doonte xam ñu musiba bi nga xamante ne mu ngi leen di yoot ci kaw pont boobu nga xamante ne juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay mètre la def waaye amuñu pexe moo tax ñu woote ndimbal. lu métti la lu métti la vraiment dañ koy dund carrément ndax fii ñu bari daanoo nañ fi dañuy mujjee di faju xam nga loolu jafe-jafe bu rëy la tamit si dëkk bi. ci wut euh, ndimbal ci wut ndimbal bu baax ndax ay citoyen lañu kom ñëpp. pont bi ñoom ñoo ko créel seen bopp. ñom ñokoy initier defal ka mais lu ñuy sakku moy ndimbal nguur gi gestu len xamne ay nit ñoo dëkk fi ñu jàppale len ba seen pont bi mëna doon pont nañu ñëw japp ci dëkk bi wax ci dëkk bi defaral len yoon bi ñu am li nga xamne mom lañu la am ci biir Sénégal parce que dañ ci am cër kon nañ cër bobu cër bobu rek lañuy laaj laaju ñu leneen